asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen seetaan seen télévision Bawal TV seen site internet www.bawaltimes.com ñu ngi waaj bis bu mag muy anniversaire bu Mbaye Babacar le prince de Médinatoul borom tàkkusaanu Bawal anniversaire bi nag sur lendemain tabaski la ku am xar ku nekk rek instant li ngay waajal mooy anniversaire boobu nga xam ne Jurbel yëpp ñu ngi koy waaj fans Mbaye Babacar yëpp ñu ngi koy waaj ni ko defee woon ci Mbaye Yékini ak ki nga xam ne moo di Max moom lañ dalal bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy événement bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax a baax a baax. mbaa yéen a ci jàmm. ñu ngi sant bu baax di leen siyaar yéen waa Baol TV di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mboolem jullit yëpp rawatina waa tubaa gépp ak waa Jurbel gi ngeen jugee di leen ñaanal seen site bi bokk ci gën a kawe ci darajay Seydina Muhammad ñu gis na mbay bis bi da ko fonk te bu koy waajal waa jurbali yëpp ay jóg et que di bëgg mu boole leen seen i parrain di bëgg bokk ci li nga xam ne dañ koy jàppale ci bisam boobu noonu ndax bis mu mag la jurbel ndax jurbali yëpp ñu ngi koy li nga xam ne moo di bis bi tuddee ko fonk la lool ndax bi ñuy waxtaan mu ngi wax fi nga jaar ak moom ak li nga seex ak moom yëpp muy loo xamante ne nii lu ñuy rafetlu la mais naka ngay waajale bis boobu noonu damay dégg ci sama benn xarit bu ñu naan Max Ndiaye mu naan dàqal mu naan boo gis rek marut te lu nit di xalaat naan su ma nekkoon naar def ko Abdallah xalaat na ko da ko mënut te lu mbott yi ngoox-ngoox du tereen nag yi naan ci biir déeg bi mbay sama digganteeg moom dama nekkoon man bu ma sax waxu tuddee parce que man maay moom moom mooy man sama digganteeg moom ndox Evian la bu tuuri ci biir géej euh, ku ko munta séparer sama digganteeg moom du ma sa jeex li ñu boole lu tuuti la woon waaye lu rëy du ñu tàqalee parce que bébé nii moo ñu boole te bébé Yékini defe naa ne. bu dee li nga ma li nga ma li ma laaj mën naa ci wax mais dama lay waxit li ci xew. Mm-hmm, mm-hmm. parce que Bébé Kini bi ñu boole defe naa ne fii bu dee fii mbërit mi nga xamante ni moom laa njëkk nekkal wala ma wax ak moom. ca ba muy def làmb du ma ne bàyyi na làmb nag waaye ca cat la la nekk parce que fi mu ne promoteur la te ñu ngi koy ñaanal sax moo am lu raw promoteur moo sama xarit Max Ndiaye ñu ngi ko siyaar bu baax baax di nuyu waa kër yëpp Mbaye Babacar Euh, dafa nekk nit boo xamante nii li muy defal nit wala mu koy seq nit kóllëre lay doon mais sax doonut xaalis wala leneen wala dara parce que xam na ñeneen xam na ñeneen Jurbel xam na fa ay maire xam na fa ñu ñu ne autorité yu bari xam na leen kon Mbaye wax dëgg yàlla euh, dafa def lu rafet rek xam ne man dafa am fu ma toll ci moom mu am fu mu toll ci man ñu warante joxe joxante ay loxo rek ñaari ndeyjoor parce que ñaari ñaari droite ñooy nuyoo. yal na yàlla def jàmm mbay sama xarit la bisam sama bis la te ci kàttanu yàlla incha allah rabi danañ ci jàpp ci saayir jàpp ci baatin incha allah. waaw gis nañ événement bi Diourbel yëpp ñu ngi koy xam ne mooy parrain yi a xam nan lay waajee bis bi naka lay demee. waaw Diourbel samay xarit lañ Jurbel ah wax dëgg yàlla waa Jurbel samay xarit lañ samay xarit rek ñoo fa nekk Jurbel euh, lépp loo xamante ne nii rek wax dëgg yàlla am naa ko fii ma nekk am naa ko Jurbel barki Serigne Saliou parce que man euh, meluma nii rek fii fu ma dem ni ma mel fii laay mel fépp waaw Jurbel daal wax dëgg yàlla bu ma jugee ñu jug nañ pare rek xam ne doomu Jurbel moo xewle mais doomu Jurbel mooy ñëw du man dong nag bokk ma ceeku gën. mbiru Babacar ñun ñëpp la Mbaye Babacar mbiram ñun ñëpp la. waaw mbiru Baye Babacar mbiru ñëpp la loolu moom lu ñu lu ñu lu ñuy dëggal la ndax Baye nekk na koo xamante ne ni ku baax la ko oyof la te fu mu yàgg rek ay nit a ko fa yàggal ak waxtaan mais sañ bi gis nañ ne dafa bëgg sañse te xam nañ ne ñoom xam ñu bëgg sañse lañ war a doon te macha allah ñëw nañu fekk la nga def sañse bu mel mais bis ba lan ngay sañse. waaw mais xam nga buñ ne set setal setantal nit day bëgg boppam bëgg di di set set mooy sa yaram setantal mooy di xool lu baax ay mbir yu rafet ba pare boole ci di sol lu set noonu la doomu aadama war a mel ni day complété nit day bëgg boppam te jàmbaar dëgg day bari tiitër te ku fekk ku bë bari tiitër du bëgg ku ko yeb day bëgg sañse te du sañoon mbiram wax dëgg yàlla dara lu tax du ci bokk kon wax dëgg yàlla mbirum Mbaye Babacar sama mbir la te wax dëgg yàlla sañse boobu muy wax ku bëgg lu baax bëgg sañse ñun ñëpp ko bëgg sañse moom ñun ñëpp ko bëgg wax dëgg yàlla. bis ba def la ñuy laaj sol lu rafet lu rafet lool ànd ak gaay ñu ñëw jàppale Babacar mbay Babacar ci sañse bi ak ci bisam waaw ñëpp sañse rek sol lu rafet ñu ñëw toog. lan ngay tàggoo comme waajur ba lépp dégg ngeen sëñ bi wax ne na sañ solo rafet ànd ak gaa yi ñëw kon yéen waajur ba bu leen ko waa Touba yóbbul waaj leen bis bi ndax bis bi bis bu jara waaj la bisu Mbaye Babacar la le prince de Médinatoul bàyyi sëñ Fallou sëñ bi tàggatoo di leen xamal ne mbay Babacar dafa yor jikko ju rafet rek jikko li li sëñ Fallou doon wax naan xam fàtte dégg fàtte fecc war ma ak fàkk jëf bañ koy bind taxuma jikko jooju la Mbaye Babacar yor Mbaye Babacar gàcce ngàllaama dundal ci kanam yow ak Bawal TV ca kaw ca kanam ñu lay ñaanal gudd fan ak wér bis boo mas a am ci àdduna yal na ko sa bis bii dàq ci dara. ba tey ñu ngi ci fii nga xam ne mooy kër sëñ Massamba Ndour fekk fa ay xaritam ay soppam ay ayam di ñu bëgg waxtaan ak ñoom laaj naka la waaja bis ak naka la ñuy gunge ki nga xam ne mooy sëñ Massamba Ndour ñu fekk fi Max borom Zik FM borom jotaayu laam bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xam ne nii ñoom naka la ñuy waajale bis bi nga xam ne moom lañ tuddee sëñ Massamba Ndour Max ñu ngi lay nuyu waaw kàggu maa ngi lay fay di la ziare di la béggee bu baax a baax di béggee mbay Babacar boroom bis bi mais nag da ngeen a tudd koo xamante ni boole ko ci parrain yi euh, vraiment ñu gis cër bi ngeen ko jàppee euh, mu nekk nit nit koo xamante ni nit ku baax muy sëñ Massamba Ndour borom ñaari Baye Fall borom ñaari Baye Fall vraiment ñu ngi koy béggee bu baax a baax di ko ziare aussi di waaj tamit bis bi. ndax kenn ku ne bisam la am te gis nañ tiir bi ngeen ko jàppee bu duggee Jurbel yéen ñëpp ngeen bàyyi seen liggéey ñëw ci moom sargal ko ba kenn ku ko xamul sax da koy bëgg a xam sëñ Massamba Ndour moom lépp loo ko darajaalee rek war nga koo darajaale lu ëpp loolu parce que nit la koo xamante ni vraiment xale la moo ñim maaseel sax da leen di defar waxantuma laak ñim mag vraiment ñun ñii ku si am problème si moom nga jëm si xam nga ku ci euh, jaaxal say mbokk say mbokk moom lañ lay moom moom lañ lay kalaameel loolu rek euh, affiche bu bu bu am solo la cër la cër bu rëy la ku ci am problème tey tey foo dem mën nañ la daw wala ku ci am nekk ci ay jafe-jafe foo dem mën nañ la daw mais tey ku nekk si ay problème wala nga am jafe-jafe ci moom ngay ñëw te boo ñëwee dina fexe ba nga fàtte sa problème dina la bëreloo kaf loola reetaan loola ba nga fàtte ko mu fajal la bu dee wàllu euh, bu dee wàllu xéewal mu fajal la ko ba dootoo ko gisati vraiment. loolu loolu dama lay ndax gis nañ ko ci moom ndax nit. ci mhm. comportement am rek la ko nit mën a gisee en attendant ñu xool li ci biir. Mhm. man bi ma ñëwee ne saraax nu yow mhm. gis na commencé naa kaf man baa mën ngaa xeex dañuy xeex ak yooyu yëpp donc mu nekk nit koo xam ne mën nañ seere ne oyof na ci moom mais naka ngeen di waajale bis bi dëgg-dëgg yéen ñi nga xam ne koy gunge. waaw ñi ngi koy waajal rek euh, vraiment sànq dama dégg nga laaj ko euh, ne ko nan nga koy waajalee euh, waaye sëñ Massamba déggoo ci biir wax ma ne la lépp ñëpp la tey euh, dakaar sax dañ koy tuddee bés mu ne waa Touba bu kenn ñëw su ma demee foofa ñëw waa foofa laay àndal te buñ demee foofa ñun ànd nañ ak moom temps yi rek euh, si benn bés buñ ko tuddee woon euh, Ibomar mais keroog Yékini dana ma nañ leen nañ leen bàyyi ak sëñ Massamba ndax keroog mënuñu woon a jot ci moom vraiment waa dakaar gépp génn nga xam te moom ñun dañ ko dañ xamuñu ko woon daal ñoom dañ koo jàpp jàpp goo xamante ne bii tey stade bépp riir. xamutul lu muy def ndax ñaari mbër yi war a daje sax dañoo daw ñëw ci sukk ci kanamam vraiment mu mel ne ñoom ñoom moom sëñ Massamba fu ñu dem noonu lay mel vraiment moo tax ma ne la Jurbel tamit sori wuñu ndax Jurbel dañ fa doon ñëw avant tout di fa fekkee ay événements yu am solo vraiment moo tax naa daal Jurbel dina neex daal ndax xam naa ne ay nitam ma fa nekk ay soppe ma fa nekk ay xarita ma fa nekk temps mi ngi leen doon wax sànq naan leen Pam Ndiaye ak yeneen gars yi ay ñoom Cheikh Niang ak ñoom ñëpp bu soobee yàlla dinañ teew ci bis boobu ngir sëñ ma Massamba Ndour jërëjëf loolu leer na euh, Diourbel yëpp dinañ teew fekk fa ñi nga xam ne ñooy waa Diourbel donc kon na nekk bis boo xam ne Diourbel la ci biir Diourbel bawal gi yëpp ñoo xewal ndax bay baaba ko wax ko wax xam ne Diourbel ko moom ndax léegi léegi yaa ngi wax ne mu ngi yëngu ci làmb te ci mbalax mi la gën a mane kon mbalax maan yëpp nañ ñëw rab mbër yëpp dinañ ñëw te aussi am benn wàll tam dam ci rappeurs yi ndax fa mu dëkk tamitam di Medina am na ay rakkam yoo xam ne ñu fa nekk di yëngu ci wàllu rab mbay daal mbayum Sénégal la kon mbay lan ngay lan ngay waaw li may tàggatoo mooy fi mu teg tànkam baax na rek ñun ñëpp ay animateur lañ mais dañuy roy si moom ndax vraiment dañu gis yéwénam ak lim ciy investir ak maanaam lim ci pësteef gi mu ci am ñun amuñu ko sax mais dañ ko ciy copier di ko ci roy ndax vraiment ku am pësteef la ci liggéeyam ku bëgg liggéeyam la aussi tamit ñi ngi sant tamit suñu rakk ba muy Fallou Ndindi vraiment ku baax la ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di di di leen jox rendez-vous daal vraiment bu bis baa tabaski daal xam naa ne incha allah ñun ñëpp dinañ ànd ak njaboot gi ñëw teewee ci bis boobu noonu Diourbel gépp nañ génn quoi ndax mbay moom mbayum ñëpp la vraiment